Mauritanie ak Sénégal mooy ah, la de nga demaat bàyyi kii di Fuuta foofu lépp la boogee saa tool xam ngaa ñoom pour ñoom nga frontière bi ngay gis sa toq policier rek tekk ci benn koñ quoi naa ngi wéy jeex frontière non il faut sécurité les frontières il faut respecter les frontières parce que kuy dugg fa ngay duggee sàcc fa lay duggee touriste fa lay duggee ku feebar fa lay duggee dëmm fa lay duggee nuuxuur fa lay duggee le coronavirus fa lay jaaree nan la respecté xoolal frontières yi ña fay nekk ñu jox leen ay moyens. yu ma sëkk yu mat sëkk jël xoolal ki force de l'armée bi ñu jox leen ay moyen jox leen ñu doy jox leen ay kóo jox leen xaalis jox leen lépp ñu am suñu bëgg ñu toog gérer ko. mais moo teg nit ki si benn garde maanaam dañuy jël dañuy jël yenn gars yi daf leen ma wax comme garde kii at euh, AFP yi ñu defe nii parce que gars yi ñoo keneen ASC boo xam ne moo tax euh, man état bi gars man dan ma jaaxal quoi mais naka ngay créer ay police yoo xam ne bay amuñu fil amuñu pistolet mais ñooy bu la ba leneen day de waa AFP waa AFP naa leen quoi Moussa mu xool am naa si benn copain xool quoi ne ko copain mën nga mën nga gaa mbay mu ngi sàll bay loolu bëgg rey de mu ngi amoo fil amoo pistolet amoo manot sa ngandi seen bi nga mel ne jàgg du yàpp ni Eh, booy da nga am problème de xam nga ni que boo koy fal si il l'état jox ko renforce quoi. Hmm, sécurité boobu moo tax bon ñu bëri xaj ah, ñu leen di noq. ñu bëri te ay ASD bëri ba xaj ñu leen di noq que da ngeen di eh, man ni ma respecté xool gendarme. te respecté ma ko AFP jéew ma ko sax. ni ma respecté militaire. respecté ma ko ñii. <laughs> police même chose. parce que ñii maa ñoom ñooy am dañu jël ak dafa nu benn xool formation accélérée 3 mois 2 mois ñu am job am naa euh. ñu si nekk ñu bari. dama respecté arme mm. je respecte tout je respecte beaucoup xoolal les Sénégal. Mm. surtout militaires yi. Mm. police moom respecté naa nii nii <laughs> franchement parlant.